amee téléspectateurs bu Actubuzz maa ngi leen nuyu di leen siyaar leen wax ne amati naa mbégte ak contentement eh, di leen présenté seen émission bi xam ne mooy eh, rendez-vous des artistes ba tax na mën nga ko ci man saa boo gisee woon nga dëkk xamal ne seet nañu ndaanan tey nag dañoo jógee dëkk bàyyi dëkk ñëw fi xam ne mooy Tëngéej ah Rio seet ki xam ne mooy ndaanaan ndaanaan la lool mu njawar nekk artiste ah ndaanaan lool mën a way lool di ndaanaan nekk xale bu ñu tëngeej nag tëngeej ko xam-xam ne dëkku aar la tëngeej dëkku aar la dëkku lépp la waaye nag dañ ciy seet benn ndaanaan mu njawar ñu seet ko a waxtaan ak moom ci aar wala waxtaan wala waxtaan ak lu bëree bëri waaye uh, naa ci am na benn album ngi koy wàcc dañ ci waxtaan ak moom ak projet njawar lan la ak njawar naka la gisee musique bi lépp dañ ci waxtaan ak moom waaye avant tout dañ koy bàyyeek uh, mu daan nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi suivre travers Activos njawar maa ngi la siyaar maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax a baax DJ baa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant. Ah, di leen wax dal leen jàmm ah maa ngi nuyu di njëkkee di sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant samay ñaanu waajur di ñaan sama papa Ñaambe Gueye yàlla yërëm ko xaaree ko àddina sama yaay yàlla bàyyi ko fi guddal fanam ba mu fekkee suñuy njariñ waa di ñaanal ñëpp jàmm di siyaar tamit waa Actubuzz di leen wax ne dal leen ak jàmm. <laughs> tey ñun dund duñ nekk sax di wax njawar fan nga commencé musique musique que ne ku xam njawar xam ne ndaanaan la waaye bu ñu reculer un peu rek laaj ko njawar euh, lan mooy musique waaw boo ma laajee luy musique musique mooy loo xam ne dañuy faral naan musique bu yeetewul yarewul doonut ay ay naxaate la donc musique dafa doon loo xam ne c'est très important ci dundu doomu aadama parce que bu ñu nee mooy ki nga xamante ne mu ngi corriger mu ngi corriger quoi art bu ñu nee mooy jëmma jëmm ji artiste askan wi donc yaakaar naa ni musique lu riche la musique euh, je me amul amul amul dara lu mën a remplacer musique daal waaw lu riche la en fait. maa ngi maa ngi waxtaan ak moom waaye xel mi nekk fi xel mi mi ngi nekk ci sàngoon bi nga xam ne mi ngi dal ci mi ngi daw ci suuf mu nekk nit koo xam te ni ay testam dafa riis lool a ko a a mag a mag xam ne sama émission du ma ci dalal kurum ndaanaan ndaanaan rek laa ci laa moom ndaanaan la dafa am benn son boo xam ne dama bëgg ñu décortiquer ko muy lëbëjoo lan mooy lëbëjoo. ah wax nga morceau bu riche nag ah wow lëbëjoo <laughs> lëbëjoo mooy euh, exemple loo xam ne mooy jaxasoo lu jaxasoo ndax ci biir waay bi maa ngi naan yow xippil xool fi ngay jaar ndax àdduna bi dafa lëbëjoo ndax yërmande jeex na fii tey nit a ngi yàq doomu aadama yóbbu ko ci sëriñ dofloo ko kon xippil xool fi ngay jaar ma ne ñaar ñu bëggante. nga la wax ci lu rafet ndax ëllëg ñettali ba waaye nag ñaar ñu bëggante nga ne du fi amee jaral la dem ci sëriñ ngir dëddaale ma ne la xanaa danga fàtte fàtte yu bàmmeel mais nag lu waaye ren ji sa loxo lay naaj loolu mooy lëbëjoo. <laughs> et puis ci say way ci say way man daf ma jaaxal ah daf ma impressionné nit day way teg teg tama gi mu rëm rëmati ba doo dégg nit ki la muy way mais ci say way soo xoolee rythme bi day wax ci day baas waaye way ba day day day yéeg ca ca kaw kaw ci semu la. waaw musique la parce que aussi luñ jàng la école des beaux arts donc amuñu amuñu droit di def erreur tu vois c'est vrai que fii dëkku mbalax la ah ñu moom ko war ko jël koy exporter ko mu dem ba tax na même mbalax bi aussi dañ ciy dem ba mu jeex takk ah dañuy mbalax lu neex nag waaw waaye nag musique dafa am comme ni ñu ko waxee am na kàddu yoo xam ne bon am na musique yoo xamante ne pour nga génn parole pour ñu ñu déglu ko il faut que nga wàcc musique bi waxtaan waxtaan population bi surtout lëbëjoo bi dafa bëri ci àdduna bi léegi ñiy yàq diggante yi dafa bëri te dañuy fàtte ne ginnaaw Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sey moo ci gën a barkeel donc du ay du ay fo donc c'est très important que ñu ñuy wax nit ñi ne leen ah sëy du caaxaan daal waaw ñaari xale yuy sey wala ñaar ñiy sey wax ci lu rafet waaw yaakaar parce que àdduna amul solo quoi. su may laa xel mooy nit loo may wax. waaw saay ah <laughs> moto bu riis nag ah, xel mooy nit ah boo ko déggee c'est parce que gis nga yàlla suñu boroom mm-hmm. ba muy yónnee ba muy wàcc alxuraan fii mm-hmm. yaakaar naa bu fi fekkul woon xel mm-hmm. arxuraan bi du gont bay fanaan te moom sax nee na boroom xel yi lay waxal kon xel mooy nit <laughs> waaw ma ciy wax ne xel mooy nit xel bu xelelewul yeetewul du jëriñ. maanaam moo ko wayewoon. xel bu xelelewul yeetewul xel mooy nit heure boobu lañ ko jàppee ma ne xel bu gàtt waral nit di toroxal doomu aadama xel bu gàtt waral nit di xeeb doomu aadama waaye xel bu gàtt moo waral nit di sosal doomu aadama waaye xel bu sell moo tax nit di jiite lu mel ni réew xel bu sell aussi moo tax. nit euh, nit di jël li mu am di ko bokk ak ñi amul mm-hmm. waaye xel bu sell moo tax nit di gis nit di am ci moom yërmande kon xel mooy nit mm-hmm. mais nag na na xalaati naayif mm-hmm. ngir jëf yi mën a rafet parce que bu xalaati naayifee rek ku ne xam ne ne jëf yi day naayif ma ne misaal bi nag mooy xoolal ci faamara rëbbkat la woon daa am bés mu dàqi mbëtt ma mbëtt mi daw dugal bopp bi yaram beex yëpp si biti ma ne kon lu ñu wutalee mala mooy suñu xel ndeysaan waaye nag li ma jaaxal prince président maa ngi koy wax ci way bi li ma jaaxal ba jaaxal moom mooy borom xel yaa ngi wër ñi seen xel matul ñu nax leen donc problème am na. <laughs> dafa garaaw ndax li tax li tax mu garaaw mooy xale la boo xamante ni nii nee naa la buy way da nga yaakaar ne mag ay way waaye boo taxee woon communiquer moom sax da ne mag mooy communiquer li ma rawee gars yi. ak ci bokk na ci troisième troisième titre ba nga xam te ni bokk na ci album bi nee na dañuy dañuy dañuy tànn rek quelques sons yoo xam ne mi ngi ci album bi ah donc waxtaanee ko def nañ def nañ li nga xam ne mooy lëba lëba joo def nañ li nga xam ne mooy xel mooy nit waaye dañoo ci li nga xam ne mooy li ma rawee gars yi Ndiawar loo rawee gars yi. waaw morceau boobu nag maa ngi ko def ak Magay ah di ko nuyu de part le maestro Magay Seck ah di ko ñàkk ki ñaan Sénégal bu ñëpp meloon ni Magay oh. Sénégal développé na. pour ñi xamul Magaye ah ñi si xam na ko Magaye mooy ki xam ne mooy tëggal ki nga xam ne mooy Kumba Gawlo. ndeysaan Magaye Seck ah di ko gërëm bu baax Mor Soxnaam ah Mor Jatu euh, Seck. fekk naa ko studio studio studio. Magaye Seck mën naa ne yéen dëkk ñoo ko xam ñun da ko yeex xam te làkk yooyu dañoo yeewu nag dañuy jël li ñu moom nag ndax Magaye nag ñoo ko moom. waaw moo tax dama koy sargal incha allah waaw moo sa li ma rawee gars yi xam nga nag yàlla dafa valoriser doomu aadama da ko teral ko. Ah, bu ko defee nag yow doomu aadama da ngay xam yaay kan yow yaay njëkk nag léegi yàlla wàccoo naax yow yow da ngay xam yaay kan xam na yow koo fi gënul gënu la valoriser sa bopp lu baax loo gis ah nga jéem ko xam nga jéem ko bëggale sa bopp lu bon loo gis nga jëm ko sorile sa bopp léegi nag euh, man dama doon koo xam ne nag xam nga man damaa simple <laughs> très waaw ah, bëgg bëgg waaw man simple ah. et puis moo tax euh, te li ma rawee gars yi mooy euh, personalité am personnalité. Ah, fii ku ne Ndiawar rek ne personalité mais ñu ngi bëri ñu bëri ñu ngi ñu bëri xamuñu lan mooy personnalité Ndiawar lan mooy personnalité. personnalité mooy de li njëkk ci personnalité nga xam yaay kan de deux nga am dignité de trois doo dox ci lu ñàkk fayda doo fekk fu ñuy yàqee ah comprends nga bu wax ji baree du yow. waaye bu jëf bi baree yow xam yaay kan doylu ah am yërmande yor xol bu rafet man loolu laa jàppee nit ku am personnalité ak euh, ci biir waay maa ngi ciy wax samay noon en plus parce que nag euh, fii yàlla ku ne dala bind tamit nga am ay noon surtout boo amee personnalité gëm sa bopp yaakaaroo ci kenn ku dul suñu boroom noonu nag dañuy taxaw laa fi waxal nag te est-ce que xam nga ne prési noonu da ngay xeexaw moom muy xeex ak doo ko bàyyi nanka non bàyyi naa la yàlla non non non non fii lay bañ nga àgg fa fexeel ba àgg fa lii lay bañ nga sol ko fexeel sol ba sol lu dàq loolu di romb di ko ree boo ko rombee teral ko <laughs> waaw noonu de. météo la moom. <laughs> mais boo sañ lu rafet xeeñ lu neex ah? foo romb bu reetaane réew bu neex boo ko gisee nuyu ko baa yaa ngi ci jàmm yal na jàmm yàgg boo amee loo ko may yëkkati may ko. est-ce que noonu est-ce que neex na xàmme. neexul xàmme mais tamit euh, ku ne xam nga ku la bëgg ak ku la yéene surtout parce que tamit Sénégal dañ koy wax te dee rek gars yi xam nañ seen noonu la mais c'est juste que noonu da koy ñeme baa nga bañ ko ñeme ñaar yooyu moo am waaw te noonu da koy ñeme parce que jaam la rek mënul dara. ku dul yàlla suñu borom gëmul dara donc danga koy ñemee li fi muy bañ nga àggaf bu yow yàlla moo la fa àggale moom lu mu ci mën moo tax ma ne bés bu nekk yaa ngi toog di yàq sama der lu ma am ci lu baax ngay bëgg dee mel ni waruma ko am yaa ngi naan kii lu muy solo fan la koy jëlee ma ne ko boo koy seet di nga wëndeelu <laughs> waaw waaw dégg nga waaw. et puis lan moo lan moo garaaw moo garaaw ci ci wayu euh, Ndiawar dafa nekk jour moo xam te nii man ay wayam dafa ma dafa jaaxal quoi genre bu way dafa mel ni benn benn genre poème bu bu way wala koo xam ni voilà mooy loolu quoi en anyway xam nga dama xam ne comprendre fi may waxee maanaam say way dafa nekk way way boo xam te ni maanaam ki toog di ko di ko du lu ci bëri pour mu xam li ngay wax il faut mu gën a gëstu li ngay wax lan la. mag la yar wala. non eh, xel bu sell man maa woy xel mooy nit man maa ko woy donc man suñ ma gisul ci xel mooy nit rek jaratul woy bi di génn donc moo tax samay wax sax pour nga déglu ko il faut nga déglu ko waat ko pour mën a xam kii li muy wax parce que euh, même alxuraan dafa junjwaa ah. léegi nag borom xel yi ñoo koy ñoo koy mottali donc moo tax man moom te et man sama dara simple waaw. Mm, simple. Jaw tamit ma bàyyi maa la gën a ñàkk simple <laughs> et puis et yow mën nañu xam euh, album bi nga waaj a génnee ñaat titre la moo ci moo ci nekk. waaw album te dafa am ay paroles yoo xam ne day dayoo. comprendre nga pour nit comprendre que sax anaama borom xel yi ah, man borom xel yi laa woyal comprendre nga donc dañuy def huit titres rek am na boo xam ne aussi docteur la. ci album bi docteur ah oui. parce que aussi docteur ku feebar moom ngay seeti ku jaaxle moom ngay seeti c'est vrai que ñoom da war a delloo njukkal moo tax woy bi ko am nga jaarama docteur kay ma laaj la docteur li jaaxal na si laa gënaan nag docteur yow lan moo tax ku feebar ñu jagar jagar yóbbu hôpital waaye sama sama problème mooy lu tax ku feebar ñu jagar jagar yóbbu hôpital waaye bu yorulee duñ ko laal lan moo tax docteur dafa fàtte lu mu waatoon. koy bëggee bu baax ah di bëggee soxnaam Marta di bëggee estafam yëpp maa leen di siyaar Soriba Kouyaté frère maa lay siyaar lu bëree bëri xam naa ne temps bi léegi mu jeex parce que ñu ngi ma koy signalé sànq ba léegi tey euh, ku ne xam ne artiste day bëgg sañse la ngay wax sa morom sa sa naataangoo yi nga xam nii lu leen neex lañ la ñuy sol fu leen neex la ñuy dem buñ la invité nga dem buñ la invité sax nga dem avant tout mu bëgg nga wax ci wàllu sañse naka gisee sañse bi léegi. ah euh, bëgg sa bopp dafa bokk ci doomu aadama c'est vrai mais li gën a am important mooy que nga xool li ngay sol c'est très important parce que aussi bés day jot nga doon mag parce que lépp ci misaal da ngay gis sax même télévision même émission bi ñu ñuy def da damay wax bés jot ñu tegaatal ma ko ça veut ko loo wax di nga ko waxaat donc loo def di nga ko defaat donc ñu ciy bàyyi xel c'est très important ku mel ni Thione Ballago sekk ah ci kaw di ko ñaanal sax yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana fi daw si euh, di ñaanal Wally Ballago yan bi yan bi woyof ci kawam donc sàmm ko ba ni mu tegee woon tànkam ci musique bi mu continuer ko ba continuer lu ko raw quoi mais ku mel ni Thione Ballago Seck leçon la Thione woyal na muuma woyal ku am baat ku amul baat ku sonn ku sonn ñëpp la woyal tey jii mu ngi nii dañ koy tegal mu ni maa la amoo dara dara dara dara loo ko mën a représenté te àdduna lii kese la ñu dañ fi jaar ak jàll donc nañ ko rafetal di wax ne jeunesse bi nit ñi laay wax Sénégal jeunesse bi non nañu ñite non nañu ñite parce que dara jaru fi dara loo fi am tey ci loo xamante ne ni jaaru yoon bés na toog nga regretté ko nañu ñite ah raxas xol yi xam ne fii kenn dëkku fi dañuy dellu waaw xam ne nag vraiment àdduna amul solo nañu yéenante jàmm ah nañ ñite <laughs> la ma nekk kàdd gu mujj gi gannaaw bañ la remercier ci dalal bi ngi dalal tey ah kontaan baax a baax ci disponibilité bi nga am la may nekk kàddu gu mujj gi waaw kàddu bu mujj bi nag moom damay gërëm ah, sama yaay abi soogu ah di di dama meilleur moment du ah. man ku ma gënul yaay rek gënuma gënuma yaay doon jàmbaar comprendre nga di gërëm yaay Mari Faye Pape Moussa Ndiaye Maguette Fall sama yaay Ngone Faye ah, yaayu papi ak mama Bass papi Bass Serigne euh, Alioune Fall waaw maamu maamu Asel bébé Asel maire sama yaay Kati Dieye ah, di gërëm ñëpp di gërëm Mansour Cissé Chéri Eva ah euh, Pape Ndiawar sama turandoo boobu donc di gërëm ñëpp suma ma rek damay juum di gërëm waa Cité rajo yëpp waa HLM Tëngéej di wax ni Tëngéej seen doom a ngi nii fi musique bi àggul woon ca kaw dinaa ko jël. dinaa ko àggale ca kaw incha allah waaw merci. damay bëggee képp koo xam ne yaa ngi suivre à travers yaa ngi